jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara dem bi ma yëkkati jataay bi ci ni ñuy nose waxtu noo ngi woon ci niñ ko war a defee jëf june ñu jëfe ko ca waxtoom ma indi woon benn addis bab ci la njëkkate woon jataay bi mooy bi yonent bi alayhi salaam daan naafila dafa gis mbooloo mi tàmbalee yokk ci ginnaawam mu xam ne ñii am na ci ñoñ bu ñu fanaanee naafila du baax te lim ci man mënuñu ko ci mu bañ toppandoo dugal leen ci gàddu lu ñu mënut waaw <laughs> léeg-léeg ngi si penc mi ku sonn lool ci yëf yi te demewut noonu ba gàddu lu mënut ndeysaan sunu yonent ba daal ni gaañi xuzu min al amali ma tutixuun jël leen lu ngeen àttan bu leen surcharge bu leen dawal lu ëpp <laughs> fa inna allah laa yamallu xataa tamallu yàlla du sonn bu ngeen sonnut boo ko doon tëwil nga ne kii dawal tëli bi du sonn oto bi du sonn loo tëli bi du sonn loo ko jox mu jël ko wa inna ahabal wa in qal nee na jëf yi ji ci gënal yàlla moo ji nga xam ne koy def tey bu nga def ko bu ginnaaw subaa nga def ko waaye def tey ëllëg nga bàyyi déedéet waaw addis la bu am solo boo xam ne bii contexte boo ko teg rek mu jël ndax addis sallallahu alayhi wa yi nun lañu meloon mu waxaat ci beneen barab moom alayhi salaatu ci wàllu nosetan mu ne ad diinu yusru ad diin yusru diine lu jàppandi la waaw diine lu jàppandi la sunu magum daar la doyen xaj Moustapha Guèye yàlla na ko yàlla yokk wér xaj <laughs> Moustapha Guèye yàlla na ko yàlla yokk wér nee na lislaam daal loo yenu mu diis tegal ci suuf ñu ne ah, mu ne maa la ko wax li tax mu diis daal mooy fu mu romb am ku ci def dara fu mu romb am ku ci def dara nga bëgg a yenul ñëpp lépp nee na doo dem waaye li la yàlla sant moom mu ne mu ne yusur yusur <laughs> waaw yàlla lim la sant yusur lu jàppandi la ne waaye diine moomu noonu ku ko song mu daan la wala nu shaadda diina ahadun illa galaba waaw ku ko song mu daan la kon nag saddidu xaaribu abshiru waaw hadis bi mas nañ ko jàng ci jamono yi li ñuy weesu tabarkàlla waaw mooy jubal leen jegeele leen jéego yi bégal leen nit ñi ndax ñëw fekk leen ci waaw bu leen jàppee dina noo xam ne bakkan nit ñi da koy ragal ak siin fit yi ad diinu yusrun waaw ad diinu waaye la defe ko noo xam ne ku la gis jéppi la koo gis jéppi ko waaw rekk tabarkàlla ndax lan jàpp nga ne ni nga mel noonu la ku ko melul baaxut waaw déedéet kadalika kuntum waaw fa manna allahu aleykum waaw kadalika kuntum fa manna allahu aleykum waaw kon góor leen waaw bu ko defee loolu am na solo euh, su ko defee nga séddale temps bi jàng waaw julli woor ak économiser sa bopp waaw di sakkanal am na solo lool yooyu yépp ku ci nekk jël lay àqam suñu réew mi am na ci ruq côté boo xam ne bii li am nañ ci solo mooy sakkanal boroom xam-xam yeeg sëriñ si di leen bàyyi léeg-léeg seen bopp ñu ne ci biir néeg bi ba génn jot ñu génn waaw loolu am na ci solo ndax eh, walla na annahum sabaru xata taxruja ilayhim ja am na solo mu ngoog loolu lu am solo la waa daaraa koy jëfandikoo alayhi salaatu salaam mu ne inna li badanika alayka xaqa wa inna li ahlika alayka xaqa wa li zawrika alayka xaqa faati kulla di xaqin xaqa nee na ñett a ni ñoo xam ne ku ci nekk am na àq ci yow hmm? sa yaram bi am na àq ci yow waaw sa njaboot gi am nañ àq ci yow sa visiteurs yi am nañ àq ci yow mooy ñi lay seet si su fekkoon kenn ku nekk ci ñi jot na àqam jot na taaxam te jëlul taaxu kee taf ci bosam kon nit ki ci tawaasun lay dund li sa yaram soxla moo ko ci moom li sa njaboot soxla ñoo ko moom ñi lay seet si liñ soxla ñoo ko moom waaw yaram wi dafa am àq dee ko yëngal waaw dee dee ko yëngal lu ñu tuddee sport sa yaram wi soo munti dawit dox baax na ci am na ci téléphone yi léegi benn application xaw ma nu mu tudd mun ma ko wax ci anglais <laughs> mun ma ko ci anglais waaye daal application yi am na ci boo xam ne bi dix dix mille pas la lay jox am na boo xam ne six mille la lay jox juróom benn junni jéego diggante zéro heure ci minuit ba ca ëllëg sa vingt quatre heures war nga fee dox junni jéego junniy jéego koo gis mu gaaw a màggat kumur tële toog baa ëpp waaw laaj ko euh, le doyen lay jaw <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér waaw le doyen lay jaw waaw laaj ko ko rek wala nga laaj ko Mayacine Mar ñoom les techniciens wala sëñ wala Amza danañ xam ne ki nga xam ne day xëy rekk di toog gis nga fi nekk nii oto yu ñu yor nii dugg ci oto bi dem ci barabu liggéeykaay ba jóge ci ñëwaat ci kër gi boo ko boo ko dëkkee léegi tey nga màggat dangay dox mbaa nga wut vélo ca kër ga wala nangam nangam maanaam sa yaram wi daal dafa am àq ci yow àq boobu du àqu sangu dong ak lekk waaye danga nga koy yëngal ruux gi ci nekk nga di ko dundal bakkan bi ci nekk nga di ko dundal ku ci ci ñoom dafa am àq ci yow ci sa jëmm ji boo ko xañee rek jamono dana ñëw nga am loo bëgg ci moom mu xañ la ko ndax doo ko fa fekk waaw doo ko fa fekk wa inna li ahlika alayka xaqa njaboot gi doom yi surga si jabar yi ku ci nekk daa am àq xam nga am na góor ñoo xam ne fi ne bu ñu wàccee <laughs> ngeen baal ba liggéey ba wàcc ñëw ci kër gi taal ordinateur lu tax wala ak si taal télévision lu tax ki nga bàyyi ci kër gi bi nga ñëwee léegi ak xam foofu la tàmbalee waaw léegi téléphone bi def ko silencieux wala nga teg ko fële waaye wàcc continuer ci whatsapp ba waaw ma dem ne ci kër gi nga ne ci whatsapp ba di jàppe lu ni nga dugg ca ne ci télévision ba rek tabarkàlla waaw ana ak xam ji moom kañ nga ko jox ndax dangaa def na àq ji mooy lal ba rek déedéet àq ji bi nga wàccee animation yi nuyoo bi waaw lal gi waaw nangam nangam yooyu da ko soxla <laughs> waaye taal télé bi rek télé yi nga xam ne am na ci yoo xam ne li ñuy def sabul xorom waaw am na télé yoo xam li ñuy def sabul xorom sabul suukar ngeen baal ma rek tabarkal nga bëgg caa toogati nag yow ci bëccëg ba léegi huit ba wàcc jot na wàcc nga gisu la ci bëccëg bi jotu fi sa benn télé sa benn sa benn message <laughs> jotu fi sa benn message donte sax am na jigéen ñoo xam ne boo message boo xëyee message leen nuyu leen baar lañ lay wax maa ngi fi rek <laughs> ñi may wax xam nañ ko mbokk yi inna li badanika alayka xaqa wali li ahlika alayka xaqa doom yi it noonu ba wàcc see doom yi dañu war ñoom tam uufu bàyyi waaw papa nangam papa nangam pàppa nangam rek waaw waaye nga yooxa leen papa nangam nga ne doy na waaw wala demal jàngi sa yi wala demal demal tëri yuuxu yooyu ñuy yuuxu xale yi day tax xale day bañ parent jékki-jékki rek tabarkalla bi nga wàccee dafa dafa neex ci ñoom ñu ñëw di la di di la di la ñuuxoo ka uufu waaw naa leen nettali saa su nekk sama elew sa ndeysaan démb woo ma bëkki démb <laughs> waaw ndeysaan sama elew sa ndeysaan noo tudd mu ne Muhammad Booy <laughs> nu sa papa tudd mu ne monsieur Booy <laughs> nu sa yaay tudd mu ne madame Booy mu ne yàlla ko yàlla yokk wér waaw wana ma démb ndeysaan ceetet as elew su tuuti la waaye su masaan ñëw ci daar ji da nga yëg ne dana la ñëw ñuuxu la ndax li muy doon doon gone eh, day am cofeel ci yow moo tax man tam su may dem ca daara ja mbooro ma bokk sama banaana ndànk su ma agsee yokk ko ndànk ne ko bëla gone yëg <laughs> nu mujj xaritoo lool tabarkàlla <laughs> noo tudd Mouhamad booy <laughs> nu sa papa tudd mu ne monsieur Boy nu sa yaay tudd mu ne madame Boy nu sa maam tudd mu ne maam Boy mu ne ndeysaan yooyu day dundal xol dafa neex tabarkàlla waaye gone yi dañ ko bëgg ci seen parents yi mais parents yu tàng jër xam naa bindu Cheikh Cheikh dana ci wax ak ca des kon ñoom waa éducation yan yàlla sàmm leen <laughs> xanaa dana ci wax bis waaw lu am solo la njaboot gi même suur gi si ah. fexeel ba ñépp ñeme la te duñ la du la yàpp mu jeex waaw euh, mu ne xuluwun fi taaca wa zuhdu innama ana axshaakum wa atqaakum la dafa amoon ñoo xam ne dañu ne woon ni ñuy toppe yàlla mooy ëpp li ko yonent bi toppe ni ñuy dëddoo àdduna mooy ëpp ni yonent bi dëddoo àdduna ah bon waaw loolu la gaa yi waxoon ca kër yonent ba li nuy toppe yàlla waaw ak lu ñuy dëddoo àdduna ñun noo koy raw loolu lañ waxoon yonent bi aleyhi salaatu salaam mu seeta loolu mu ne dégg naa li ngeen wax innama ana axshaakum wa atqa lillahi wa atqaakum la bu dee ragal yàlla ma leen ko gën a ragal bu dee jom maa leen ko ëppale loolu leen yonent bi wax bu dee ragal yàlla maa ko gën a ragal bu dee jom maa leen ko waaye ni may ni ngeen def duma ko def man damay naafila di nelaw damay woor di dog damay denc soxna it lii may def na ku ko xeeb ba defoo ko bokkoo ci man ku ko xeeb ba bëgg na dangay def lu ko ëpp ne bu guddee doo nelaw bëccëg doo lekk doo denc soxna mu ne fa lay sa min kooku bokkul ci man yàlla nañ bokk ci yow waaye ya rasulallah di def na nga daan def te bañ a xeeb ya nga daan def dund sa sunna si yomb yomb na waaye jafe na waaw dund sa sunna si yomb na waaye jafe na ñii daal jàpp ne ñoom ñoo bëgg raw yonent bi ah loolu kay xel xalaatu ko sax nag xel xalaatu ko kon moom sunnaam mooy di naafila ak nelaw sunnaam mooy di woor a dog sunnaam mooy denc ay soxna loolu mooy aw aw doxalinam ci àdduna si ban doxalin mën xaju tawassut wal i'tidaal mën xaju tawassuti ci daal loolu mooy système mu doxalinam mooy équilibre mooy yemam yemoo loolu moo doonoon sunnaam bayna ruuxiya wal maddiya équilibre moo doon am ci diggante yaramam bi ak ruuxam gi yaram bi jot ci lim soxla ruux gi jot ci lim soxla waaw mu ngoog mu am kon séddale bu maandu bu am diggante bakkan bi boroom bi walla moom ci boppam ak boroomam ku ci nekk la nga am nga jot ca waaw bu ko defee lislaam téerewul nit kuy am waxtu woo xam ne danga ca noppalu ci lu dagat kenn ku nekk la lay nopp la lay noppal féexal soxol waaw benn saxaaba dafa ñëwoon ci alayhi salaatu salaam Hanzala dem këram del si daat ne naafaqa xandala way naafaqa xandala loolu la waxoon waaw lu xew mu ne naafiq laa way naafiq naa waay ñu ne déet mu ne ax ah akay naafiq naa yanu loxo yi di jooy yonent bi ne ko waaw lu xew mu ne ko ni may nekkee ci yow dafa bukk ak ni may nekk sama njaboot kon naafiq laa seetal mbokk yi déggin woowu nañ ko bàyyi xel baax daf ne ko ni may nekk ci sa foot boo toogee ak na may nekkee sama kër du benn su ma toogee ci yow boo weñ dalee sax du ko dàq waaw su mu ne ko su ma toogee ci moo weñ daloon sax du ma ko dàq ma dem kër ga jëpp cëppi kon naa féq la lay <laughs> ndeysaan lu bari lu am solo la nit ki ni muy nekk ci sëriñ bi ak na muy nekk ca njaboot ga du benn directeur bi ni muy nekkee bureau ak ñamu yilif ba àggee kër ga nekkatul directeur waaw nekkatul directeur ki ki ki nekk ci ñim yilif bokkut ak ki dem ci ñu ko yilif du benn déedéet <laughs> du benn de waa ji waa Hanzala mu ne yonent bi man kon naafiq la su ma ñëwee ci yow dama naan group seddu guy ba mu weñ daloon duma ma ko du ko duma ko dàq mu ne ko waaw mu ne ko suba demee sama kër di cëpp-cëppi maag gone yeeg jigéen ñi kon man je suis un grand nafiq waaw jàngalekat ba sallallahu alayhi wa jàngalekat ba nga xam ne àdduna ngi soxla njàngaleem mi guddi ak bëccëg mi ngi koy soxla ñu won ginnaaw njàngaleem mi rek topp njàngalem tubaab bi topp Occident topp bitim réew te yim jàngale bitim réew sax nga koy jëfe nun nu toog rek waaw jàngalekat boobu ne ko ndeysaan yaa Hanzala yaa Hanzala mu ne ko labayka mu ne ko law baqaytum alal xaali allati takunu takunuuna aleyha indi la saafaatkumul malaayika fi turuqaati mu ne ko ni ngeen di mel ci man bu ngeen ko doon mel ci mbedd yi mel ko seen kër dangeen jóge ci cadre nit dem ci cadre malaaka te yàlla bindulu leen pour ngeen nekk ay malaaka daf leen bind ngeen nekk ay nit ay kii mën a jàngale waay ni ngeen di nekkee fi man su ngeen ko doon dëkke saa su nekk ci man ci mbedd mi ca kër ga la saafaat xumul la saafaxat kumul malaayika kon malaa da ngeen nekki malaaka fi turuxaati walakin walakin yaa xandala saa wa saa saa wa saa bi ci man ak heure ba ca kër ga waaw saa wa saa heure bi ci man heure bi ca kër ga heure bi ci man mu ne waaw ni ngeen di def noonu la heure ba ca kër ga it na ñi def noonu la waaw ne ci njaboot gi waaw bokk añ bi bu fekkee corona amut <laughs> waaw bokk añ bi bu fekkee corona amut waaw tabarkàlla ku ne yor sa kudd bi kudd xewee bi kudd xewagut nag ndeysaan feebar yu bariwut waaw ndax ñun wax naa ko barki dem ñoom saas Alioune Mbaye ak sëñ Mbàkke mii jóge ci jataay bi léegi bi fi ceeb di dóor a ñëw mag ñi dañ ko ragaloon moo tax ñu ko daan dànk bi ñu yàggee ceeb nag ba ñeme ko ñu bàyyi dànk wut kudd di peel kudd gi soo peelee day yóbbaale dëwlin ji dank boo ko daan def dafa daan bàyyi diwlin jë bu lépp dañu tit diwlin jë wàñjiku nga dank sex donc ndaay xam nañ ci dara <laughs> waaw dank sex boobu loo xewoon kon ne ci yonent bi ci xaala dem sa kër nekk ci beneen xaala taxuta naafiq xaala ba ca kër ga loolu la kër gi soxla xaala bi ci yonent bi loolu la yonent bi soxla waaw waaw bu rek lay tekki sunu xalifa yi yàlla na yàlla sàmm leen te nekk ci a aturux asuufiya xam naa moom tam ñu ngi ciy bind incha allah jataay boobu dana ñëw ci waxtaanu fajar yi dawru turux asuufiya waaw fi nasri eh, ad diin aw nañ ko tuddee incha allah noo koy bind ndax xëy na comme ab diire gi nii <laughs> ki daan jël ordinateur yi jëlu ko yóbbu jómbal waaw xam naa bu <laughs> nga noonu rek yàlla bu mu ko jël kenn mësu koo gis rek xandara loolu la ko yonent bi wax saa wa saa hadis boobu rawaahu muslim kon hada huwa sha'nul muslim saa wa saa saa li wa saa li qalbihi waaw noonu rek lay demee mu ngoog yi al ca boroom xam-xam yi la bokk waaw dana na dangay dem ca àll ba gis ca jigéen ña ku yor kurusam waaw di sàbbaal yàlla waaw yor bantam di tusngalu mu ne ko waaw yow ñaar yi nga bëgg boole nag ay na haada min haada bëgg boole yor kurus di sabbaal yor bant di tosungalu maanaam di wax di di di di defaru di di toilette mu ne ko waaw ñaar yi nga bëgg boole nag waaw xam nga am na ci nit ñoo xam ne loolu daf leen a jaaxal jigéen ja tontu ko ne ko walillaahi minni jaanibun laa udiuhu mu ne waaw mu ne walil walil bi minni wal bataalata jaanibu walil lahwu minni wal bataalatu jaanibu aw kama xaala mu ne ko yàlla daa am lum am ci man duma ko bàyyi moo tax ma yor kurus gi mu ne waaw mu ne ko jëkkër ji am ci man cër moo tax duma bàyyi toilette bi mu ne ko kon ku jooju jigéen ŋàbbu kurus gi ba noppi ŋàbbu bant bi tey tusngalu dégg ngeen li mu wax kurus gi kat suñ boroom a ko moom tusngal gi jëkkër jee ko moom mu ne ma boole ñaar yëpp nag ñu ne ko wax nga dëgg <laughs> bind bi jeexut dañoo ak suñ ko war yëkkatee ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi c 3 yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara kenn àndaloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune sal in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa barakaatu